xoto boole xoto ma ñamaa ñoo ni xoto waaw waaw xoto boole xoto ba ñamaa ñoo ni xoto cey xoto boole xoto ba ñamaa ñoo ni maa ngi leen di nuyu di leen gërëm yéen ñépp dafa jot pour ñu bàyyi caaxaan nañu liggéey li may bañ mooy Ablaye Wade reeñu bi Macky Sall faloo ba tey ñu ngi werante wax nañu waxu Karim ba ne ko ràpp ci kaso bi jeex nu ñu ci taxawati di uh, werante nañu bàyyi uh, werante boo leen toppee journaliste yi doo leen liggéey li Macky def yëpp ñu kenn mun a ci teg bët man gëm naa ne Macky Sall dafa am ñu ko liggéey maa ko wax parce que munoo nekk def bourse euh, familiale dimbali ay junni junni sénégalais te nit ñi duñu ci wax wàññi location ku ko def Macky yokku salaire ku ko def Macky wàññi échange euh, ku ko def Macky tabax université numéro 2 ci Dakar ak euh, Kaolack li Macky def yëpp ñu war ko communiquer kenn waxu ci dañu ko liggéey buñ ko liggéeyul tamit am na ñu koy ñoo xam ne dañu leen war a génn transhumants yi nga xam ne dañuy bàyyi seen parti ñëw bu leen toroxal ndax ñooñu du ku ñëw rek indaale nit nit bu demee nekk fenn bàyyi ñëw buy dem wote du yóbbaale nit ndax élection rek ngay gis nit dugg ci bërëb di wote sànni kat bu la neexee nga ne wiiw Macky dugg woteel keneen loolu yaag euh, fi ngay dugal enveloppe bi rek mooy témoin nañu bàyyi di caaxaan te liggéey benn mandat transhumant yooyu yëpp day tardé Sénégal dañu war a avancer bàyyi caaxaan man am na lu ma doy maa ngi nii tiiñal Ablaye mais dafa doon jël xaalis di ko yóbbu ci avion bi ba ñu yóbbee tur bi naan moo ma gagné fukki million laa war a fay Ablaye kon ngeen xam ne Macky Sall du caaxaankat ndax su ko neexoon ne Dansokho man la àndal dafa tooñ Ablaye dama koy faral ku yaakaar ne boo dawee ci sa parti ñëw ci Macky Sall dalay baal yaa ngi nax sa bopp ndax Macky liggéey rek la xam nañu bàyyi caaxaan bi te liggéey li ñu dese ci ay at bariwul te bu ñu gañee wallaay Ablaye dinañu reetaan Ablaye ngi commencé di liggéey de mu ngi ci réew yi di dox di lijjanti barki Demba Njaay ngeen koy gis day joxe enveloppe ci prisonnier yi fu mu jëlee xaalis ma ngay lijjanti nañu bàyyi siis bi ak soxor bi te bàyyi militants yi ñu ñëw ñu uuf leen liggéey waaye di werante rek loolu mënul tax Sénégal jëm kam jëm kanam waaye boo xoolee ba ci biir Macky am na ñu koy yàqal parce que koo xam ne lu baax li nga def yëpp kenn mënu ci teg bët am na lu nekk ci suuf kon nañu bàyyi wax ji te liggéey ni ko euh, waay waxee bul faale bul toppatoo yow demal demal bul faale bul toppatoo